invité doon jàngalekat doon daaya nekk daal ci liggéeyu islam bi yàlla ko yàlla dooleel te nag mu ñëw fas yéene fàttalante ak yéen ci thème bu am solo mu aju ci wàllu jigéen importance yu jigéenu jullit jigéenu jullit lu mu mën a def ba avancé ci diineem ak it xam pakk yi nga xam ne moo koy fakkatal naka la koy moytoo ci biir loolu la fas yéene waxtaan ak yéen kon mbokk yi tedd yi ñu bàyyi soxna ab sama nuyoo ñu dellu si ñëw wax leen tomb yi ñu tëdd
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ñu lay nuyu tànta nuyu lislaam di ko nuyu mbooleem ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy déglu rajo dunia di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
kon soxna Absa jërëjëf ci nuyoo bi léegi xam naa dañuy daal di dugg ci liggéey bi di la ñaanal yàlla na la yàlla defal fasaaxa ba say mbokk déglu waxtaan bu baax te nag ñu am solo lañu comme ni ñu koy waxee toujours dañuy topp émission bi di ko jël yittewoo ko lool rawatina bi nga xam ne yaa ngi waxtaan ci almar al muslima al muasar jigéenu jullit actuel tey jii jigéenu jullit fi mu toll loolu mooy mawduul muhaadara bi tey léegi nag dana ko séddale incha allah ci ñeenti tomb bi ci jiitu mooy ahamiyatul mawdu thème bi ni mu amee solo ñu bàyyi ko xel na ci teg jigéenu jullit lan moo koy dëgëral ci wàllu taxawaayam bi nga xam ne moo ko war bu ci jógee dina ci teg ñetteelu tomb bi changement yi nga xam ne tey moo am ñu koy gis ci jigéenu jullit ñu wàccee àndam ci lu gën a bari dana ci ñëw dana ñëw ci tomb bi nga xam ne mooy ñeenteel bi defe naa li waral loolu yépp tey mooy jigéen liberté bu mu am te diine islam joxu ko ko mu jógee xam naa fin tàggatoo kon yal na ko yàlla defal jàmm kon soxna Absa ñu bàyyi la ak premier tomb bi incha allah.
alhamdulilah comme ni nga ko waxee rek tante mooy tomb bu njëkk bi dañuy wax lan mooy importance su thème bi ndax dafa nekk thème boo xamante ne bii dafa am importance bu mag a mag a mag boo xam ne day feeñ ci mbir yi di ñëw bi ci njëkk mooy ki ñuy waxal ci thème bi moom mooy jën wàll société bi muy almara moom mooy nisfu mujtama te moom mooy jur beneen genn wàll gi ci des muy góor ñi kon mën nañu wax ne kon moom moom mooy société bi kon moom la ñuy adressé kàddu gi ñaareelu tomb bi mooy dafa am ñaari tomb yoo xamante ne bi yu global lañ yoo xam ne ci la waxtaan bi incha allah di wër te tomb bu ci nekk dafa laaj ñu gëstu ko jàng ko xam ko bu baax a baax a baax ci côté yar ci côté social ci bépp côté dañ ci war a gëstu xam bu baax a baax a baax moom jigéen jullit ñetteelu mbir bi mooy ne tey association yi nga xamante ne bi association occidentaux yi ñi nga xamante ne bi sionistes yi ñoom ñoo leen jiite ak yeneen association yoo xamante ne bii dañu taxaw ngir xeex li nga xamante ne bii moom mooy diine lislaam dañu jàpp ne élément bi nga xamante ne bii moom mooy jigéen rawatina ci jamono ji moom mooy nekk maanaam yoon bi gën a gaaw pour ñu jaaree ci ba gañe ci li nga xamante ne bii moom mooy diine lislaam ba suufeel ci li nga xamante ne bii moom mooy diine lislaam te élément boobu wala jigéen jooju ñeneen jiitu woon démb ña nga xamante ne bii dañu yoroon seeni njàndaay daan xeex lislaam ñoom bàyyi wuñu woon xel ne mënoon nañoo gañe lislaam bu gaaw ci buñ ko jaaree woon ci jigéen ñetteelu mbir bi liy wane ne tomb bi dafa war a am dafa am importance ñu war kaa waxtaanee mooy ne jigéenu jullit ci jamono yi ñu nekk nii melokaanam dafa am ay dimension yoo xamante ne bii yu yu yu doy waar la kon mu ñu war kaa xoolaat bu baax a baax càmbaraat ko xool ko ci maanaam ni mu dëppoowee ak naka la war a dundee mu dundin boo xamante ne bii dafay dëppoo ak alquran ak sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam beneen bi ci des mooy dafa bëri tey ci suñu ci suñu société bi lu ëpp tey ci suñu jigéen yi dañu dañu dañu fekk ji wala dañu wuy ji ñi nga xamante ne bii dañuy woote ci ay liberté de la femme ak sécularisme yi libéral yi ñu nekk dañ leen a wuyu ji ci ñoo xamante ne bii soxlawuñu dara ci jigéen lu dul bànneex bu ñàkk solo bi nga xamante ne bii ñu ngi ko ciy am fii ci àdduna kon mbir yi yëpp dafa nekk loo xamante ne bii kon moom moo ñu poussé ba ñuy waxtaanee ki nga xamante ne bii moom mooy jigéenu jullit ci jamono bi ñu nekk.
mu ngi noonu kon soxna Absa ni nga ko ni nga ko ni nga ko tënkee boo ko yaatalee solo bi dana am dana am solo macha allah. kon ñu dem ci yaatal yi incha allah.
premier tomb bi muy almur almar al muslim al muasira wa sawaabit. jigéenu jullit bi nga xamante ne bii moom mooy jigéenu jullit bi dund ci suñu jamono ji ak mbir yi nga xamante ne bii ñoom ñoo koy dëgëral ci diine ndax dañu toll ci jamono boo xamante ne bii bu la sa diine yittelee en tant que jigéenu jullit te xamoo lan moo la ciy dëgëral rek ngelaw li bu dikkee rek dalay fëkk te ngelaw li moom côté bu nekk lay uppee ci jamono ji moo tax jigéen ju nekk rek war nga jàng war nga xam yan mbir ngay jàpp wala yan mbir ngay appliqué ba nga xamante ne bii da nga mën a téye ci sa diine boobu ba dara du la mën a fëkk daray àdduna du la mën a këf te sikki sàkk nekkul ci ne bépp jigéenu jullit boo xamante ne bii dafa gëm buur bi tabaaraka wa taala gëm yowmal xiyaam sikk nekkul ci ne jigéen boobu war naa xam ne am na ay mbir yoo xamante ne bii moom moo koy tëralal dundam am na tëralin woo xamante ne bii moom la buur bi tabaaraka wa taala tëralee dundinu doomu aadama yi rawatina ki nga xamante ne bii moom mooy jigéen mu war cee jaar tamit mbir la yoo xamante ne bii wala ay yoon la yoo xamante ne bii su ci jaaree rek loolu dina ko permettre mu mën a téye ci diineem ba nga xamante ne bii dara du ko mën a yóbbaale ci ay caaxaan bi njëkk ci mbir yooyu mooy ñu am confiance bu mat sëkk que ne yow jigéenu jullit bi mindaafoon nga boo xamante ne bii buur bi tabaaraka wa taala moom moo la bind te ginnaaw ba mu la bindee itim sàndiwu la rek bàyyi la waaye daf laa digal nga jaamu ko moom rek bañ kaa bokkaale kenn waaye tamit ci jaamu googu nga koy jaamu nga jaamoo ko comme moom buur bi tabaaraka wa taala ni mu la ko santee comme ni mu ko bëggee pas yow comme ni nga ko bëggee loolu jigéenu jullit bi bu ko xamee lii dina ko jàppale ci mu mën a téye ci diineem mën a dund diineem normal ndax tey bëri na ci jigéen ñi ñoo xamante ne bii dëgg la ñi ngi jaamu yàlla de waaye ñoom ni niñ ko bëggee rek lañ koy defee nim leen noppalee rek lañ koy defee te yàlla tabaraka wa taala dafa wax ci alquran ne ala lahul xalqu wal amr moom yàlla moomoom mi daa fonam yi waaye tamit moom moom ndigalam kon li nga xamante ne bii gannaaw nga xamante ne bii moo la moom moom mi la bind li mu la digal defee ko comme li nga xamante ne bii noonu la ko sante te it ñuy bàyyi xel bu baax ne buur bi tabaarak wa taala bi mu ñu bindee binduñu woon ngir caaxaan dafa am hadaf bu taxoon mu binduñu mu leer naañ ci alquran ne wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudun binduma nit ak jinne lu dul ngir ñu jaamu ma kon loolu bu ko jigéenu jullit bi xamee yaa Seyda dina doon lu koy jàppale ngir mu dund diineem comme ni mu waree ñaareelu mbir bi nga xamante ne bii bokk na ci mbir yi nga xam ne dañuy dëgëral jigéenu jullit ci diineem mooy mu am confiance bu mat sëkk que ne alquran bi nga xamante ne bii moom la buur bi tabaaraka wa taala wàccee ci xeetu sayidina muhammad alayhi salaatu wasalaam ak sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak mbooleem mbir yi nga xamante ne bii boroom xam-xam yi dañ ciy dëppoo muy al ijma ak nattuwaay yi nga xamante ne bii boroom xam-xam yi dañ ciy natt mu ànd ak ay chartam yu wér ñu koy wax alqiyaas yooyu ñoom ñooy balluwaayu sharia ñoom ñooy source yi ñoom ñooy delluwaay yi ñoom ñooy attewukaay yi ci sa dund en tant que yow jigéenu jullit te mbir yooyu muy alquran wala sunna wala ijma wala qiyaas moom rek moo mën a traceel jigéenu jullit yoon bu baax bi nga xamante ne bii fa lay jaar daal di fay am texe àdduna ak alaaxira te it mooy yoon bi nga xamante ne bii li war jigéenu jullit ci yoon boobu mooy mu jébbalu topp ci yoon boobu womatlu bëgg yoon boobu màggal ko ndax yonent bi al buur bi tabaraka wa taala dafa wax ci alquraan yi fala wa rabbika laa yuminuuna xatta yuxakkimuuka fi ma shajara baynahum thumma laa yajiduu fi anfusihim xarajan mimma qadayta wa yusallimuu taslima ne Muhammad maa ngi giñ ci sa borom ne jullit ñii ne topp nañ la duñu gëm mukk mukk mukk mukk lu dul dañoo ñëw ci yow di attewoo ci jaxasoo yi nga xamante ne bii dafay am seen diggante ñu koy attewoo ci li nga xamante ne bii moom mooy alquran ak sunna te itam ginnaaw ba nga leen ci attee ba pare duñ ci am benn sikki sàkk wala benn naqar boo xamante ne bii dañ koy téye ci sa xol yi kon jigéenu jullit bi bu xamee ne que lii ñoom ñoo war a atte dundam dina ko dimbali ba mu jàpp ci diineem ba mu dëgër waaye itim jigéenu jullit bi dafa war a am confiance bu mat sëkk que ne diine bi nga xamante ne bii moom mooy lislaam moom mooy diine bi nga xamante ne bii mooy diine bi mujj ci diine yi amul benn diine boo xamante ne bii dina ñëw ginnaaw lislaam te moom mooy diine yi dëgg bi nga xamante ne bii kenn warta topp ci beneen diine bu dul moom ndax buur bi tabaraka wa taala keroog bi nga xamante ne bii yonent bi alayhi salaatu wasalaam matal na mission bi nga xamante ne bii moom la ko santoon moom la ko sasoon daf ko wàccee ci moom alquran wala benn aaya ne ko al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum nicmati wa raditu lakumul islaama diina tey jii de ci lay mottali seen diine ji ci lay matee sëkk muy lislaam samay xéewal itim ma mottali ko ci yéen ñi nga xamante ne bi yéen ay ñooñu lislaam waaye itim maa ngi leen gërëmal diine bii di lislaam rek moom muy nekk seen diine beneen aaya bi mu ne wa man yabtagi gayra al islaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi l axirati min alxaasirin buur bi tabaraka wa taala mu ne képp kuy jàpp beneen diine di ko diine woo budul diine lislaam yàlla du ko nangul diine boobu te ëllëg yowmal xiyaam kooku ci way perte yi lay bokk waaye tamit mu waxaat ñu ba tey ci alquran ne inna diina inda allahi lislaam diine ca yàlla moom mooy lislaam kon amul benn diine boo xamante ne bii dina ñëw ginnaaw lislaam loolu jigéenu jullit bi daf ko war a daf ci war a am yaqiin mu leer nàññ ci moom te itam mu gëm ne nag lislaam bii nga xamante ne bii moo mujj ci diine yi gannaaw moom moo mujj ci diine yi kon lislaam la boo xam ne wala diine la boo xam ne dafa valable pour place yépp ak jamono yépp lislaam ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan dund démb moo ki saxaabaam pare jox ko taabiin yi ñu pare jox ko atbaaw taabiin yi lislaam boobu moom mooy dox ba ex ñun teyit mooy dox ba ilaa yawmi diin te jamono ju ñëw rek lislaam boobu dina méngoog moom waaye tamit lislaam boobu dina méngoog temps yépp kon ñu xam ne tamit ñu gëm ne tamit lislaam boobu moom rek moom moo mun a doxal suñu dund en tant que ay jigéen bi si faam ma te lépp tamit lu mooy lislaam boobu ñu gëm ne ak ceddo la ak ceddo la goo xamante ne bii buur bi tabaraka wa taala gërëmu ko benn yoon ndax yàlla subhanahu wa taala mi ngi wax naan afa xukmal jaahiliyati yabguun wa man axsanu min allahi xukman li qawmin yuqinuun ndax dangeen a jël àtteg ceddoo di ko gënale ak li nga xamante ne bii moom mooy àtte buur bi tabaraka wa taala te amul benn àtte boo xamante ne bii moom moo gën a rafet àtte buur bi tabaraka wa taala waaye loolu nag ñu koy xam mooy ñi nga xamante ne bii dañoo am yaqiin ci buur bi tabaraka wa taala ak i dogalam ñeenteelu mbir bi ci mbir yi nga xamante ne bii moom mooy dimbali jigéenu jullit bi ba mën a moy ci diineem bu ko xamee mooy mu am confiance ne image bi nga xamante ne bii moom lay appliquer ci dundam mu nekk benn jigéen boo xamante ne bii jigéen bu exemplaire la mooy dundin bi nga xamante ne bii moom la ummahatul muminin yi doon dundee ak saxaaba yaat yi radiallahu anhunna wa ardaahunna jigéenu jullit bu fekkante ne bii bëgg na dund dund bu dund bu baax dundin boo xamante ne bii dundin bu buur bi tabaraka wa taala gërëm lay nekk maanaam mu ngi koy dundee mi ngi koy jéem a royee di ko xoolee ci dund ni ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy ndey jullit ñi ak saxaabiyaat yi radiyallahu anhum ba loolu tax na ne kon jigéenu jullit bi nga xamante ne bii moom mooy dund ci jamono ji ci pas-pasam ci jaamu yàllaam ci ay jëflanteem ak ay comportement am yépp dafay nekk donc ñaari mbir yi mbir bu njëkk bi mooy imma mu nekk mbir boo xamante ne bii mën na cee roy ñooñu nga xamante ne bii ñoom ñoo doon dund jigéen yu baax yooyu nga xamante ne bii ñoo daan dund ci jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam wala mu bañ caa nekk bu fekkente ne bii dafa nekk ci mbir yi nga xamante ne bii jigéenu jullit ñi nga xam ne ñoo daan dundandoo ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu mën lañ caa roy roy ba mu leen ci roy itim wala mbir ma nga xamante ne bii mi ngi leen ci roy itim waajib lay nekk loo xamante ne bii c'est obligatoire daf ko war a def wala mu nekk loo xamante ne bii mustahab la wala mu nekk loo xamante ne bii mu baax la lu dagan la wala loo xamante ne bii atte ñëwu ci boo xamante ne bii day wane ne lii dafa xaraam wala dafa dagan kon su fekkente ne bii mbir bi muy roy ci ndey jullit ñooñu loo xamante ne bii lu yàlla farataal la ci mbooleem jullit ñi masalan comme muuraay kon loolu bu boobaa roy boobu waajib lay nekk waaye su fekkente ne bii dafa nekk mbir boo xamante ne bii mustahab la dañu ko sopp su ko defee dina ci am tuyaaba waaye su ko bàyyee du ci am bàkkaar kon bu boobaa ba wax nañ dañ koy wax ne mbir boobu mu ciy roy bu ko royee mustahab la roy ko mustahab la waaye tamit su fekkente ne bii mbir la boo xamante ne bii amul dara lu ci rot ci ndigal wala tere kon moom doo moom jullit bu jigéen boobu moom mooy xool li nga xamante ne bii moom moo ci gën a jege ci jikko yi ñamuy roy muy saxaabiyaat yooyu mu daal di koy def ndax léeg-léeg nit dina def loo xamante ne bii mun nañ wax ne du ñëw ci alquran du ñëw ci sunna waaye mbir yooyu yépp am na ci loo xamante ne bii mooy gën a jege dundiinu ñi nga xamante ne bii ñoo daan ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci ay jigéen bu ko defee mu daat leen di roy ci loola. ñaareelu mbir bi mooy roy boobu muy roy jigéen ñu baax ñooñu mun naa nekk tamit ci mbir boo xamante ne bii munu koo roy ci ñoom ndax du lépp lañ mën a roy ci saxaabiyaa bi ndax am na ay mbir yoo xamante ne bii xewoon na seen jamono xewul ñun suñu jamono wala am na ay mbir yoo xamante ne bii. mi ngi xew suñu jamono surtout te ñoom seen jamono eggaguñu woon ci foofu kon jigéenu jullit bi nga xamante ne bii moom mooy dund ci jamono bi ci mbir yooyu nga xamante ne bii tey mi ngi koy gis te xewul woon ci jamono yonent alayhi salaatu wasalaam dañu koy wax ne dafay appliquer qaayida bi ñuy wax taqdim dirul mafasid ala jalbil masalih moom maanaam mu jiital toppale loo xamante ne bii dafay loraate mu jiital ko ci li nga xamante ne bii moom mooy intérêt kon yow jigéenu jullit bi saa yoo gisee benn mbir bu taxaw boo xamante ne bii leer na la ne lii kat sa intérêt ngi ci waaye ànd ak li muy ànd ak sa intérêt yépp am na ay loraange yoo xamante ne bii mi ngi ci imma ci ñi nga dëkkal imma ci société bi wala ci say wayjur wala yu demee ni ki noonu kon yow bul bu boobaa bul xool sa intérêt boobu nga xamante ne bii moom moo ci nekk waaye fexeel nga toppale mbir boobu ba nga xamante ne bii du yàq dara wala du lor kenn. waaye itam liñ koy sant ci mbir yu mel noonu mooy mu waxtaan ci laaj ci ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy boroom xam-xam yi nga xamante ne bii ñépp seedal nañ leen xam-xam waaye seedal nañ leen ne ñu am diine lañ waaye seedal nañ leen ne ay nit ñu maanu lañ. mu daal di waxtaan ak ñoom laaj leen ci loolu fu ñu ko teg rek mu tegu fa waaye tamit su fekkente ne bi loolu jàppandalul ci moom na waxtaan ak xolam yaa sayda na waxtaan ak xolam ndax jàpp naa ne doomu aadama bi lépp loo xamante ne bii bëgg nga ko def te boo koy def bañ nga diw ak diw fekk la fa gis la wala rus nga nga def ko doomu aadama yépp dina jàkk di la teg seeni bët kon yow loolu waroo koo def kon bu fekkente ne bii mbir boobu nekk na mbir boo xamante ne bii sa xol may na la nga def ko te nit ñëpp di la gis doo ci am benn problème kon loolu yaakaar naa du doon benn problème mun na koo def waaye tamit su fekkee mbir la boo xamante ne bii boo koy def bañ nga nit ñi gis la loolu nga daal di koy teg ci suuf moom mooy li nga xamante ne bii moom mooy nekk sa maslaha diine bu boobaa. ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ci ci xadis ba de man ittaqa shubuhaat faqad istabraa li diinihi wa irdihi képp ku nga xamante ne bii da nga moytandiku lënt-lënt yi te lënt-lënt yooyu mooy mbir yi nga xamante ne bii dafay nekk sa xol. doo xam ne lii ba xam xaraam na doo xam ne lii ba xam dagan na boo delloo ci dundu saxaabiyaat yi doo ko fa gis ndax ñoom amaana amul woon ci seen dund xewlu woon ci seen jamono bu ko defee kon loolu yow subha lay nekk ab lënt-lënt lay nekk te yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa ne képp ku nga xamante ne bii mooy tandiku nga subaha yooyu setal nga sa diine waaye setal nga sa der juróomeelu mbir yaa sayda bi nga xamante ne bii daf ñuy jàppale ba ñu jàpp ci suñu diine sax ci en tant que ay jigéenu jullit yi nga xamante ne bii ñi ngi dund ci jamono ju doy waar ji mooy ñu am confiance ne loi yi nga xamante ne bii yëpp dañ koo indi dañ koo fabriqué sax laay wax ak ñi ko fabriqué taaral gi ñu ko taaral rafetal gi ñu ko rafetal yooyu yëpp ay loi la yoo xamante ne bii dafa ñëw ngir buuxante ngir xëccoog sharia buur bi tabaraka wa taala dañoo ñëw ngir xëccoog yàlla ci chariam bi nga xamante ne bii moo ko tëral waaye tamit nekk na ay mbir yoo xamante ne bii bëgg ko ak bëgg buur bi tabaraka wa taala wala appliquer ko ak appliquer charia buur bi tabaraka wa taala ñoom ñaar duñu tase mukk mukk mukk abadan duñu tase mukk yàlla subhanahu wa taala ni mu tegee ne nii lañu war a dundee ni mu tracé ne nii lañu war a dundee yoon yi mu rëddine ci la ñuy jaar wala yoon bi mu rëddine ci la ñuy jaar nekk ñu jub nekk ñu texe àdduna ak alaaxira mënuñoo ne dañuy dund yoon boobu dañuy jaar ci yoon boobu bëgg koo booleeg yeneen yoon yi nga xamante ne bii ay doomu aadama ñoom ñoo ko fi tëral daal di koy méngale ak ni mu neexee seeni bànneexi bakkan munta nekk mukk mukk mukk ndax ku jaar penku la ak ku jaar soowu ñaar ki nga xamante ne bii nag danga ànd ak moom wala ñaari nit ñi nga xam ne danga ànd ak ñoom ñëw ba ci yoon bi ba ci digg yoon bi kii jaar di ne man maa ngi jëm penku kii jaar ne man maa ngi jëm soow ah kenn rek nga ciy mën a topp waaye doon na ñoom ñaar ñëpp ngay mën a topp. kon loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax te ñu xam ne itim loolu ay loi la yoo xamante ne bii loi yu loi yu matadi la. loi yu matadi la yu tamit yu yu ameel ak nit ñi yuy tooñ doomu aadama la. tamit ay luwaa la yoo xamante ne bii fu mu tollu day weddi boppam day weddi boppam ndax buur bi tabaraka wa taala li mu wax leer na walaw kaana min indi gayrillaahi la wajadu fiihi ixtilaafan kathira alquran bi nga xamante ne bii moom la yàlla wàccee mu nekk comme catalogue bi nga xamante ne bii moom mooy wan ki nga xamante ne bii mooy doomu aadama naka lay dundee ci la yàlla def ay luwaawam yàlla nañu alquran boobu su fekkonte ne bii dafa jóge ci keneen ku dul yàlla dinañ ci gis ay wute yu bëree bëree bëri mooy tey loi yi nga xamante ne bii moom la ñuy tëral chaque jour wala chaque année wala nangami at la ñuy dem ñu voté benn loi ne waaw dañ koy def ñu demaat tuuti ne déedéet wala ñu voté benn loi ne déedéet demaat tuuti ne waaw kon ñoom seen loi yooyu toujours dañuy weddiwaat seen bopp rek kon yaakaar naa li nga xamante ne bii da nga koy teg tey ne baax na bu subaa nga dindi ko ne baaxul wala nga ne baaxul tey bu subaa nga ne baax na loolu kon nekkul loo xamante ne bii luy defar dundu doomu aadama la wa innama li koy defar mooy alquran bi nga xamante ne bii moom la yàlla teg kon nga gëm ne en tant que ab jigéenu jullit que ne alquran bii rek mooy loi bi nga xamante ne bii mooy loi bi jag mooy loi bi nga xamante ne bii mooy loi bu maandu mooy loi bi nga xamante ne bii moom moo la mën a jox lépp loo xamante ne bi yelloo nga ko ci say àq waaye tamit moo la mën a xamal li nga xamante ne bi àq yi nga xamante ne bi yeneen doomu aadama yi am nañ ko ci yow beneen mbir muy juróom benneelu mbir ci mbir yi nga xamante ne bi jigéenu jullit bi su ko xamee rek dina dund diineem comme ni ko buur bi tabaraka wa taala gërëmee mooy mu am confiance bu mat sëkk que ne yàlla subhanahu wa taala ak yi nga xamante ne bii jox na ko jigéen fala maandu te mën a yem fala rafetal ci jigéen tamit mën a yem kon képp koo xamante ne bii ñëw na ne la dinaa la indil ma dinaa maandu ci sa côté maandute boo xamante ne bii dafay sut maanduteeg buur bi tabaraka wa taala wala dinaa la rafetal dinaa rafetal jëme ci yow rafetal boo xamante ne bii dina sut rafetal bi buur bi tabaraka wa taala rafetal jëme ko ci jigéen ñi jàppal ne kooku dalay nax ndax buur bi tabaraka wa taala dafa xool bépp mbir boo xamante ne bii góor ak jigéen mën nañ caa yem mu daat leen cay yemale ñoom ñëpp ñu bokk ci yem képp waaye tamit mu wuutale leen ci mbir yi nga xamante ne bii kenn ko ca nekk yàlla subhanahu wa taala dafa xool ba xam ne kat kii yaramam moo ko àttan ka ca des yaramam àttanu ko wala kii am xelam moo ko àttan ka ca des xelam àttanu ko mu daal di koy teg ka nga xamante ne bii moo ko àttan daal di koy teggil ka nga xamante ne bii àttanu ko loolu foofu la jigéen ak góor amee wuute ci lislaam ndax xel nanguwul buur bi tabaraka wa taala ñëw ne inna allaha ya'muru bil adli wal ihsaan yàlla dafay digale ngeen maandu te ngeen di rafetal ba pare moom muy tooñ di jëmee ci mindaafanam yi kon nga xam ne lépp loo xamante ne bii am na wuute ci lislaam ci sharia ci sa digganteeg góor boo ko jàngee ba càmbar ko di nga gis ne kat lii nangam bii moo tax lislaam teg ma ko daal di koy teggi góor wala nangam bii moo tax lislaam teggi ma ko daal di koy teg góor waaye lépp loo xamante ne bii buur bi tabaraka wa taala xam na ne yéen ñaan ñëpp attan ngeen ko yéen ñaan ñëpp la ciy boole ci ay atte kon loolu jigéenu jullit bi su ko xamee bokk na ci li koy jàppale ci mu ngoy ci diineem bu dëgër juróom-ñaareelu mbir bi mooy mu amit confiance bu mat sëkk que ne lépp loo xamante ne bii nekkul woon diine nekkul woon sharia ci jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam mënta nekk diine tey mënta nekk sharia tey ndax yàlla ba mu ne al yawma akmaltu lakum diinakum boobu la diine ji matoon sëkk kon bu ñu toog ba heure bii ñu bëgg a jël yeneen i mbir ne dañ koy dugal ci biir diine ji bëgg koo jàppee comme diine te loolu sax bu boobaa xanaa kon ñun dañoo bëgg a wax ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam mot matalewul li nga xamante ne bii mission bi nga xamante ne bii moom la ko buur bi tabaaraka wa taala sasoon te keroog ba mbir yi matee sëkk ba mu taxawee def kiiwam boobu discours am bu mujj boobu nga xamante ne bii moom la def ca xijjatul wadaa lu mu wax ñam fa nekkaloon ala hal ballaat allahumma fashhad ndax jotale naa ndax matale naa li nga xamante ne bii mission bi nga xamante ne bii moom la ma buur bi tabaaraka wa taala santoon ñoom ñi fa teewoon ñëpp ñu seedeel ko ne mat na sëkk mu ne kon yàlla seedeel ba pare wëlbatiku nag ne yéen ñii kat jot ngeen ci ba mu mat sëkk yéen ñii nekk ak man fii jot ngeen ci ba mu mat sëkk waaye am nañu ko jotagul kon fal yu balligi shahid minkum alghaib ñi xam te teewee te fekkee nañu jottale ñi nga xamante ne bii xamuñu wala teewewuñu wala fekkewuñu kon ñu jàpp ne kon bépp diine boo xamante ne wala bépp mbir sax laay boo xamante ne bii indil nañ ñu ko fi ne ñu ci diine ji la bokk te nekkul woon diine wala bokkul woon ci diine ji ci jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam mënuta nekk diine ci suñu jamono ji ndax tey jii am na ay mbir yoo xamante ne bii mi ngi am ñu bëgg ko boole ci lislaam te loolu boo xoolee jigéenu jullit ji dund ba démb ak barki démb dund nañ ay siècle ay ati ati at yoo xamante ne bi ñoom xamuñu woon mbir yooyu kon tey bu ñu bëggee ñëw dugalal ñu ko ñun ñii ci suñu diine ji ñun jigéenu jullit yi nekk ci jamono ji war nañoo deltuwaat ginnaaw kon ñu xool ba xam ni nekkoon na ci dundinu jigéenu démb yi bu ci nekkul woon kon ñu xam ne lii du diine wa innama mbir la boo xamante ne bii dafa ñëw ngir xëccoonteeg buur bi tabaaraka wa taala ci ay digalam ak i tereem ak i dogalam waaye nag ñu di ko woowee ay liberté droit de la femme ak wala tur buñ ko mën a taaralee rek ngir xëcc ci ki nga xamante ne bii moom mooy jigéenu jullit bi. juróom-ñetteelu mbir ci mbir yi nga xam ne bu ko jigéenu jullit bi xamee dina ko jàppale ba diineem dëgër incha allah mooy mu am confiance ne mu xam ne am yaqin ne mbaax ak mbon dañu yàgg xeex xeex bu yàgg yàgg yàgg yàgg. xeex bi mi ngi tàmbale keroog bi buur bi tabaaraka wa taala bindee suñu maam Adam alayhi salaam sant malaaka yépp ak iblis bi nga xamante ne bii mi ngi woon ci ñoom ne nañ ko sujootal malaaka yépp daal di rot daal di koy sujootal ba mu des iblis moom mu lànk ne du ko sujootal ndax moom moo gën Adama Adama yàlla mi ngi ko bindee ban te moom yàlla mi ngi ko bindee safara keroog bis boobu la noonoo ak xeex diggante mbaax ak bon taxaw. te it du deñ mukk di tàkk ba keroog bis penc te jigéenu jullit bi nga xamante ne bii moom mooy dund ci jamono ji moom dafa nekk ci digg xare bi fi xare bi tàngee la nekk ba loolu tax na ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy nooni lislaam yi boobu ba léegi dañuñu toujours di jafal ay fitna diggante jigéen ak góor lu tax ku góor ki di di génn am liberté am di dem yow ngay toog ci biir kër gi di sonn ci xale yi bu dikkee nga bëgg a wëlbatikuwaat sonn ci moom lan moo tax yàlla wax lii ak lii ak lii ci alquran jëmale ko ci góor ñi te yow te yow yàlla waxu ko ci yow nekk nag di jafal ay xali safara ci diggante ki nga xamante ne bii moom mooy jigéen ak góor wala diggante ki nga xamante ne bii moom mooy jigéen jullit bi ak téere buur bi tabaraka wa taala ndax yooyu ñuy def noonu ñoom xeebuñu ko ndax ñi ngi bëgg a jax-jaxal ci sa xol ba nga weddi li nga xamante ne bii moom moo ñëw ci alquran wala ba nga dem di dundi beneen dundin boo xamante ne bii moo uuteeg dund bi nga xamante ne bii moom la la alquran tëralal te bu ñu fàtte ne buur bi tabaraka wa taala dafa wax ci alquran ne wala hunna mithlu lladi alayhinna bil maaruf jigéen ñi kon l'islam jox na leen seen àq kon alquran jox na leen seen àq waaye tamit nii ngeen xamante ne bii noonu ngeen amee ay àq noonu ngeen amee tamit ay wareef yoo xamante ne bi daf leen a war loolu alquran xamal na la ko kon bu la waxu noonu yi fëkk mukk mukk mukk ba nga jàpp ne yow amuloo benn àq ci dund gi juróom-ñeenteelu mbir bi nga xamante ne bii jigéenu jullit bi su ko xamee dina ko jàppale ba mu dëgër ci diineem mooy li nga xamante ne bii jigéenu jullit bi xam ne que li nga xamante ne bii moo dal jigéen démb ak bërki démb ci tooñ ci ñàkk matal ay àqam ci rey giñ ko daan rey ak ay yeneen métital yi nga xamante ne bii dañ ko daan métital ci dund nekk na ay mbir yoo xamante ne bii sharia al islam daf ko mës a bañ daf ko mës a dàq waxuma la bañ ko kese waaye keroog ba lislaam taxawee dafa daal di changé soppiloo mbir yooyu yépp teggi la coow teggi la coon tooñ yi nga xamante ne bii ñu ngi la ko daan tooñ coono yi nga xamante ne bii ñu ngi la ko daan teg loolu yépp lislaam bi mu dikkee nga xam ne yow daf la koo teggil kon lislaam nekkul koo xamante ne bii dafa ñëw ngir toroxal la waaye dafa nekk diine joo xam ne dafa ñëw ngir yëkkati la dafa ñëw ngir teral la ndax lislaam dafa ñëw fekk démb boo juddoo duñ la sax xaar nga nga jooy dañ lay daal di gas suul ne la yow ëllëg si biir da ngay jur gàcce da ngay indi gàcce kon amoo droit dund lislaam ñëw ne leen na dakk bu mu fi amati bu leen gasati benn jigéen di suul waaye nag ñu ne mu mel ne dañ ko ne waaw ña nga xamante ne bii xas lañ leen suul nag mu ne leen mbir yi mbir mi du yam foofu wa idal mawudatu su ilat bi ay zambin qutilat ñi nga xamante ne bii dañ leen a suul ñuy dund di ay jigéen duñ leen bàyyee noonu de ëllëg yowmal xiyaam ña leen ko defoon yàlla dina leen taxawal ci kanamam laaj leen ne leen kii lan la leen def ba ngeen suul ko fekk mi ngi dund ba ngeen xañ ko axam bi mu waroon a am ci dundam. lislaam ñëw fekk la sa papa génn àdduna wala sa borom kër ñu ne la doo doon yenn saa yi sax ci yenn sociétés yi ñu ne la yow. matériel nga boo xamante ne bii dañ lay doonu dañ lay boole ci mbi alal ji nga xamante ne bii moom la borom kër gi bàyyi ñu di ko ci doonu alquran ñëw lislaam ñëw ne leen déedéet kii kenn dootu ko doonati waaye est-ce que yem na foofu déedéet mu ne lir rijaali nasibum mimma tarakal walidaani wal aqrabuun lir rijaali nasibum mimma tarakal walidaani wal aqrabuun walinnisaai nasibu mimma taraka alwalidaani wal aqrabuun nasiban mafruda góor ñi am nañ wàll ci li nga xamante ne bii seeni wayjur wala seeni mbokk yi nga xamante ne bii dañ leen a jege dem bàyyi leen fi ñu war ko cee doon ñoom am nañ ci wàll ñoom góor ñi waaye tamit ñoom jigéen ñi am nañ ci wàll kon nekkul ne daf laa faxasal donn gañ la daan donn kese waaye innama daf laa def yow ngay donn en tant que doomu aadama comme góor xëy na nag wutale na seen doon ni ndax yéen ñaar da ngeen a bokkul te jigéenu jullit bu jàng ba gëstu dina gis xikma bi nga xamante ne bii moom moo nekk ci jigéen na jël benn góor ñaar. kon lii bokk na ci mbir yi nga xamante ne bii lislaam teggil na la ko kon nga xam ne kon l'islam musuta ànd ak mukk mukk ñi nga xamante ne bii dañuy doon jigéen waaye musuta dëppook ñoom te tey dundin boo am dundin booy dund ba mu mën a neex ba nga mën cee siggi ba nga mën cee féex jàppal ne l'islam moom moo la ko may waaye du ñuy fi ñëw tey ñoom ñoo la ko may juróomeelu mbir bi nga xamante ne bii jigéenu jullit bi su ko xamee dina xam dina mën a téye ci diineem ba mu dëgër mooy ñu xam ne buur bi tabaaraka wa taala daf ñuy taxawal ëllëg ci kanamam lii jigéenu jullit bu ko xam yaakaar naa ne war ngaa góorgóorlu bu baax di nga góorgóorlu bu baax ci sa diine sàmmoonteeg sa digganteeg sa borom nga xam ne buur bi tabaaraka wa taala ëllëg yowmal xiyaam dina la taxawal ci kanamam te lépp loo defoon ci lu baax dina la ko fay comme ni mu koy fayee ku góor ki waaye tamit lépp loo defoon ci naka sudul noonu dina la ko fay comme ni mu koy fayee ku góor ki buur bi tabaraka wa taala di ko leeral ci alquran mu ne fa man yaamal mithqaala darratin xayran yara wa man yaamal mithqaala darratin charran yara képp ku nga xamante ne bii dangaa def lu toll ne pépp suuf ci lu baax di nga ko gis ëllëg boo taxawee sa kanamu borom waaye tamit képp koo xamante ne bii da nga def lu toll ne pépp suuf ci ak mbonte ëllëg boo taxawee ci sa kanamu borom buur bi tabaaraka wa taala dina la ko fay comme na nga ko defee woon. kon lii mooy fukki mbir yi nga xamante ne bii tënk nañ ko ci ne jigéenu jullit bii dund ci jamono bii su jàppee ci mbir yi rek te xam ko incha allah dina dund diineem dund ko comme ni ko buur bi tabaaraka wa taala gërëmee te dara. du ko mën a yóbbaale wala mu di ko xëcc.
jërëjëf soxna Xat macha allah lii lañ doon séntu ci yow développé nga lu ama ama am solo yàlla la jigéen ñëpp dégg rawatina bi lu dul tey incha allah ñu bëri dañ la dégg ci yow.
incha allah kon dafa nekk loo xam ne day ubbiwaat boppu jigéen pour jigéen xam na kan la amala ndax xam nga noonu moom yàgg na fi nekkoon depuis bani aadama gi moo tax yàlla jox na ay conseils yu bëree bëri bëri bani aadama wax na ci suratu yaasin alam ahid ilaykum ya bani aadam allah taabudu shaytan innahu lakum aduwwun mubin gis nga mu ngi wax toujours doomu aadama kii di doomu aadama moytul kuréelu seytaane bi bu ñu waxee kuréelu seytaane nag nekkul da ngay séentu ku ami béjj nag garaw gi di dem ci tànk yi déedéet seytaane dafay dugg ci nit di liggéeyloo nit am na kuréel yoo xam ne ñu ngi liggéey te kuréelu seytaane wallaahi ñooñu nag ñooy dem di contre yàlla ku contre yàlla seytaane mënu ko passé wallaahi wallaahi ndax seytaane nii la contre woon yàlla ca ba ñuy sujjoot wax nga ko léegi ñooñu nag ba léegi seen laxasaay dañoo de ñu ne ngembal ngembal saay-saay du tas dafay raccental dëgg la ngembal saay-saay du mës a tas Wallaahi.
waaye dafay raccental na ma nga yaakaar ne rek fii na waaye nag mu noonu Mhm.
kon ñooñu pexe bu ne ñu ngi koy fexe te sa commencement wax rek dafa am solo mooy jigéen mooy élément bi nga xam ne su taxawee baax àdduna baax dem fi ko yàlla bëggee tey day wëlbateku doon njàmmam Mhm.
jigéen boobu moom su bonee tey àdduna yàqu Mhm.
te day wëlbateku moom ci boppam yàqu dëgg la kon loolu na ci jigéen bàyyi xel jox nga leen ci ay firnde yu wóor li nga wax ne itam dañuy digle ba pare weddiwaat seen bopp loolu bari na bari na lépp lu ñu mës a digal lu dul lu yàlla digle rek échec nañ ci te gis nañ ci lu bëri wallaahi
premièrement maa ngi lay wax ne bu njëkk li ñu njëkk woon indi mooy bu jigéen nàmpalati doom Mhm.
bu jigéen nàmpal daal di ko wutal ay biberon yu bëri doo ko ay poudre yoo xam ne bu ko naanee ween yi taxawaat mais dañuy dem ba gis ci inconvénient yu bono bono bono bon léegi nag ñoo toogaat di nàmpal leen nàmpal leen gis nga wallaahi yaa ngi leen di gis ñu toogaat di nàmpal leen wallaahi gàllankoor bi ci jigéen bu mu teel a tee sëy bu mu teel a tee sëy te xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko yàlla itam noonu la tërale dëgg la wallaahi bokk na ci barkeb jigéen teel a sëy teel a sëy Mhm.
Euh, gis nga yàlla jox ñu misaal ci sunu yaay Aïcha moom ñu sànni xeer Wallaahi.
moom ñu sëy ci sept ans sëy ci neuf ans Mhm.
jël ndam li ci dix-huit ans wallaahi gis nga loolu ci génn jigéen na jigéen toog ba dëcc ba xam xam àdduna ak ya ci biir yëpp boobu xam nga néeg boo ko dugal mu génn du fa toog wallaahi du fa toog.
du fa toog waaye non seulement du fa toog waaye léegi docteur yaa ngi kiy wax sax bu demee ba ëmb doom pour mu jur ko problème la ndax day fekk yax yi dajuwaat na dajuwaat barki démb rek maa ngi ciy wax ak sama mag Awa Ndiaye ci loolu ma naan ko opération ñuy wax ni ci césarienne yi ni mu ni mu kiiwee ni mu ni mu bëriwee ci kii ci jigéen ñi ma ne ko boo seetloo ñu ci ëpp ci ñoom dañu yéex a sëy ñoo ko sombi ñoo koy naan dañu yéex a sëy te boo demee nag ba toll ci yenn âge yi say yax dafay dëgër say yaram dafay dëgër dégg nga ba pare say cër tamit tëju na tëjuwaay boo xamante ne bii pour nga am doom bu boo moytuwul rek di di di xotti rek moom moom moo moo la ciy génnee gis nga kon gis nga yaa ngi gis affaire yi xam nga yaa ngi koy topp wallaahi donte kon xale nga mais yal na yàlla barkeel yaa ngi gis lu bari ràññaat la nag moo jafe ci nit ñi wallaahi kon tere nañ la teel a sëy ba teel a teel sëy toogal ba màgget doog a sëy boo màggetee sax ku lay bëggati nag ñëpp daw nañ la yëpp daw nañ léegi la ngay amee tamit xëy na du doon di la gën a gis nga loolu échec la ba léegi ñu ngi seet yeneen bunt yu ñuy jaar beneen bi mooy tere nañu nit ki jurati yaa ci ci loolu nag Ci lañ nekk, mel ci nii tànk yooyu mel nii nag mooy mooy bi xew jigéen bu mu jurati doom xam nga kooku jigéen mooy yàqu ji ëllëg wallaahi ndax jigéen tey dañ lay téye ki lay téye nga ànd ak moom ndegam am na sax comme tere nañ la sëy ku lay téye ku lay téye wala léegi nag boo amulee doom ku la war a téyewaat foo jëm te gis nga boo amee jëkkër jëkkër ji da ngeen di ànd màgget dëgg la moom dootul mën dara kan moo lay war a téye yaa jëkkër boobu mooy doom doom ya mënu la bëgg loolu léegi gis nga inconvénient yooyu ak yéen matuwaay yi ñu jël yëpp ci buur juróoti gis nañ ci problème yu bari muy dellu ginnaaw ne espace la ñu wax espace espace ba itam doon musiba ndax ku espace ñetti at ñeenti at balaa ngay ëmbate waaye ñoom sax Musiba ñoom moo nekk.
ñoom ñoom musi mu ñoom euh, euh, li nga xamante ne bii noonu ñoo koy jëlee ci seen réew di ñu ko indil fii ñàkk a jur boobu Europe la Europe la njëkkee waaye tey dañoo dem ba fi mu nekk nii li ñuy tuddee al aydil aami la dañuy dem ba toll ci yenn jamono yoo xamante ne bii am na liggéey yoo xamante ne bii ci société bi jeunes yi rek ñoo ko mën a taxawee te amatuñ waaye amatuñu ay jeunes amatuñu ndaw loolu Europe la njëkkee ñoom dañu dem ba génn ci ba set ci wicc na nag voilà kon ñoom bañ ci gannaaw bañ ci génnee ñoom bëgg seeni jabar di jur ba ci dégg naa ci yenn dëkk yi nga xamante ne bii sax jigéen bu am xawma lu ëpp ñaari doom dañ lay neexal di la fay dootoo liggéey voilà toog nga ci di nga éduqué xale yi ndax ñoom dem nañ ba soxla doomu aadama yooyu kon tey ñoom bu ñu bëggee wëlbatiku indi ñu li musiba bi leen dal moom lañ bëgg mu dal ñu kon loolu ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy responsable yi nekk ci kaw ñu di leen indil ñoom ñoo war a bàyyi xel bu baax a baax a baax waaye nag li nga wax rek yenn saa yi moom mbir yi dafay xaw a jaxasoo day mel ne dañoo laxasoo ki nga xamante ne bii moom mooy seytaan lii dina dimbale bu baax jigéen ak jigéen mu xoolaat fu muy jaar xool xam ne sëy barkeel mu ngi sëy xam ne teel a sëy moo koy dimbale xam ne nef reyul nit ña doon nef amuñu da xam nga xam nga yàlla dafa am façon yu muy doxal ñay nef dañuy teel a pare rek génn ci wallaahi.
30 ans jur nañ liñ jur ba jur toog.
nañ li ñuy jur ba Nga ci ànd toog.
ak sa doom nga ni déedéet kii wala sarak la.
kii sarak la Gis nga, bu wér loolu bénéfice bu rëy la reyul kenn de reyul kenn de déet man sax bari na xaw seen yaa say daa dogu ma ne mais li ma jaaxal ci teel a sëy gi nga xamante ne bii ñoom ñi ngi koy xeex waa xale yi nga xamante ne bii ñi ngi ëmb nag ci à l'âge de 15 ans yàlla yaa ko koy bañuñu ko sëy bi nga xam ne mooy charia ba fan yële paase dama mës a ànd ak sama rak mu may gunge dama demoon sama kër yaay sama rak bi di ma gunge mu taseeg benn xaritam nuyu ko te kooku moom mooy sama caatu yaay mu taseeg xaritam nuyu ko bi mu ko nuyoo après mu dabaat ma man maa ngi continué woon di dem mu dabaat ma mu ne ma kii ngay gis nii de dafa ëmbal doomu jàmbur ma ne ko ah li nga wax rëy na de kii xale bu tuuti bii mu ne ma ah sama moroom la de waaye ëmbal na de ma ne ko kan ko mu ëmbal nag anamu mu ne ma ka mu ëmbal tamit xale bu tuuti la mu ne ma kay moom li ko may chance mooy ñoom ñaar ñëpp ay xale lañ sinon kon kooku ndaw sa tuuti na tuutiwaay boo xam ne moom mi ci kaso bi lay dee. ma ne ko léegi nag gis nga ndaw soosu mi ngi dem hôpital sage-femme ba koy ba koy ba koy suivre mi ngi koy gis xam na ne musiba la def pourquoi génnuñ ci rajo yi kaas ko fi ay tey bu fekkonte ne bii ay waay juróom dañ koo maye.
gis nga kon tey ba léegi ngàbb nañ leen bu fekkonte ne bii keroog ba ko yaayam jàppee loxoom yóbbu ko hôpital ndaw sa xool ko ne dafa ëmb dafa am jëkkër ñu ne ko waaw sage femme ba ci boppam mooy njëkk a woo rajo ak télé yi ñu ñëw ne maye nañ xale boo xamante ne bii 14 ans la am mi ngi nii ëmb na danger la ci moom nangam ak i nangam te xale ba ba tey kenn déggul coowam doy na waar.
kenn déggul coowam Gis taxaw na daal wallaahi taxaw na taxaw na taxaw na Mhm.
léegi man maa ngi doon gis ci benn benn ndeysaan be- tey de benn journal laa ko mës a dégg xam nga ban rajo la mais benn jigéen bu dem ba lii yëpp mu paase ko nag toog di regretter lu méttee méttee.
wallahi wallahi ndax dafa doon dund dundin woo xam ne mooy dund li ma neex. waaw ba nga xam ne sëyul woon amul woon ay doom léegi nag mag na. léegi kenn bëggatu ko léegi amul doom du ko tenir léegi mu ngi feebar jooy sax def na ko.
allah mu ne dal na ko tey. nga allah xam ne nag mën naa arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka.
wallahi bu kon wér dafay jël sëkk nag jigéen. war a delluwaat surtout jullit. delluwaat ci li ko islam sant. ndax ala yàlla man xalaq wa huwa latiful xabiir.
wallahi yàlla wallahi mi sàkk doo nga xam li mu sàkk te yàlla juumut waaye ku ñëw nag di diingat yàlla day mel ni yàlla moom parewul yàlla dafa juum yàlla li mu wax ja- jugut parce que loolu lay nural yàlla nañ ci yàlla musal allah xalaat amin allah kon jigéen daal na tënku ni nga ko waxee ci diine.
yàlla nañ la dégg nañu tënku te loolu nag jàng da ciy baax dee wallahi wallahi moom mooy base bi mooy base bi ndax euh, nit ki moom munoo ne loo munoo ne dangay dangay tari loo xamante ne bii jànguloo ko loo jàngu rek doo ko tari kon sa diine munoo ne danga cee bëgg a tënku appliquer ko te jànguloo il faut ñu jàng suñu diine ñu jàng xam yàlla xami dogalam xam lépp parce que am na benn problème euh, sa xab soxna xab sax benn problème bu mosoon am ci ñaari way day dente fii ci réew mi de dañoo doon sëy ñu dégg nag lii nga xam ne loolu lañ leen wax ba ñu amee seen ñaari doom yu góor ak benn bu jigéen ñi ne yam nañ fa nag ñoom allah arrêté nañu la ilaha parce que ñaari yooyu doy na sasi fii ñu d'accord ci ba def seeni pexe waaye yàlla nag ma nga fa mu nekk rek nekk yàlla benn bés rek ñu génn ñoom ak mari bi ak doom yi ñu def benn choc mais xale yi ñoo dee allahu akbar ñetti xale yëpp ñoom ñoo dee La kenn hawla wala indi wu ci bakkan léegi nag mu des ñoom ñaar dëj bi passé na ay at ndaw si day jooy rek ndaw si day jooy rek ba nit ñi nag nekkoon nag léegi léegi la nekkatul dee ndax dee kay wax dëgg yàlla metti na waaye bu demee ba am at wala balaa muy egg at war nga mën a fàtte mais des di jooy rek ci la doog a wax nag li muy jooy lan la wallahi ndeke li muy jooy non seulement du xale yi dee rek mais la muy jooy mooy dafa ëlbati woon butitam ba dootul inna lillahi wa inna te tey ilayhi la gën a bëgg jëkkëram te tey lañ gën a nekk jeune te nag ndeysaan malheureusement malheureusement jeex mënatul na. moo tax yàlla ku yëngu di ko bàyyi xel te yooyu yëpp am na loolu la ñuy wax wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu xayrul makirin wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan kon foofu soxna soxna ab sa daal fi nga dugg wax dëgg yàlla am na solo ci jigéenu jullit mu gën a xamaat palaasam gën a xamaat rolam gën a xamaat fi ko yàlla teg xam li ko yàlla dénk xam résultat yi itam yu ko yàq naka ciy xaar dëgg la xam nga ne jigéen boo sàmmoon teg sëyam sëy na mu war a sëy am doom yi yar leen Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci ko yar doom doom Wallaay.
yar ko yar bu baax yar bu baax benn doom boo ko yaree yar bu baax fii sa kër aljana kunna lahu sitran min annaar yow nii te aj na waaw léegi nag boo ci yaree nag saxaaba yi ne ko boo ci yaree ñaar ba ñett nag waaw boo ci yaree fukk nag waaw.
boo ci yaree fukk ak juróom ah gis nga kon xéewal dong la ñuy sax wallahi wallahi wallahi wallahi te it noonu yi loolu dong lañ xam moo tax ñu iñaanee ñu ko loolu dong lañ xam moo tax ñu iñaanee ñu ko loolu la nag sama absa loolu la nag sama absa kon defe naa ne sarte waxtu des na tuuti mais da ngay gën a demaat ci jigéen liberté bi nga xam ne tey jii ci lañ koy soxla yeneen encore inconvénients yi muy jot sa heure des na tuuti xam naa bareetul temps mais am nga foofu cinq minutes yow mën a gën a développé aywa bu fekkee wàllu liberté bi moom liñ ciy wax rek euh, dañuy wax euh, suñu mbokk jigéenu jullit yi nga xamante ne bii ñoom ñooy dund ci jamono jii ne leen euh, liberté bi nga xamante ne bii tey ñu ngi koy wooteel jigéen ñi su fekkente ne bii baat bi ba mu jibee ca Europe jig na leen ndax ñoom lañu daan dund ci tooñ lañu daan dund ci ñàkk a jot seeni euh, droit lañu daan dund ci suufeel gu mett gi nga xamante ne bii suufeel nañ la ko bu wéree tamit loolu nekkul lu wér ci comme ni nga xamante ne bii tey jii ñun noonu lañ koy jàppee
ndekk kat suñu heure baa ngi xaw a jege xam naa xam naa foofu moom lu nekk daal du doy waaye dañ du doy dañ koy dencaat bu beneen yoon dëgg la la kii soxna absa dina ko tàggoo rek ci gàtt ñu dëgg incha allah waaw incha Loolu bi allah comme ça demee la.
incha allah dinañ ko développé waat xam naa beneen yoon incha allah ndax euh, thème baa ngi suñu kanam soxla nañ Incha allah.
soxla nañ ko itam nag
waaye rek sama tàggatoo mooy rek damay ñaan sama mbokk jigéenu jullit ñi ne leen nañu fexe rek rek rek ba kenn bu mu jaaree ci ñun ngir am li nga xamante ne bii moom mooy lislaam bu kenn jaaree ci ñun ba am li nga xamante ne ba suufeel ki li- diine ji nga xamante ne bii mooy diine buur bi tabaaraka wa taala wala ba euh, teggi orma yi nga xamante ne bii ñoom ñooy orma buur bi tabaaraka wa taala te ñu xam ne li nga xamante ne bii moom moo nekk ci buur bi tabaaraka wa taala maa indallahi xayrun lil abraar moo gën fuuf ci gaa yu baax yi wa man nasru illa min indillah te it ndam ci buur bi tabaaraka wa taala rek lay jóge buñ jàpp ne ndam mi ngi nekk ci mbir yi nga xamante ne bii noonu ñu ngi ñu koy indil nañu fexee tënku ci yoonu buur bi tabaaraka wa taala ñuy ñaan buur bi tabaaraka wa taala yàlla bu mu ñu bu mu may ndoon yi ndam ci suñu kaw waaye tamit yàlla nañu dëgëral gën ñoo jàppale gën a rataxal suñu digganteeg suñuy dëkkandoo suñu digganteeg suñuy wayjur suñu digganteeg suñuy borom kër waaye tamit rawatina suñu diggante ak moom buur bi tabaaraka wa taala yàlla musal ñu ci seytaane jinne yi ak seytaane nit ñi gën ñoo dëgëral ci yoonam bi nga xamante ne bii moom mooy siraatal mustaqim siraatal ladina an'amta alayhim gayril maghdubi alayhim wala daalin di nuyu suñu xarit suñu soppe Oustaz Saïd Ly di nuyu mboolem jàngalekat yi nga xamante ne bii ñoo nekk ci imam école imam Ali ibn Abi Talib ak élèves yi waaye tamit di nuyu suñu yaay soxna Mariama Dieng ak suñu papa Damlo ak suñu papa Modou Seck ca xaar yàlla ak ñëpp ñi nga xamante ne bii ñu ñu ngi ñuy déglu ñu di leen wax ne rek incha allah beneen yoon dinañ fi teew incha allah ngir développé waat li nga xamante ne bii moom moo des ci thème bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
waaw soxna Absa moom la ñu dalaloon tey sant bi neexul waaye nag jàmbaar la nekk sant bi nag moom moo daax sa sant yàlla bi.
fay ko yal na yàlla barkeel yal na yàlla fay tamit eh, sa kilifa bi la fi bàyyi na ñëw fi di sa seet yal na yàlla dina jàppale waaye mbokk yi ñu doon déglu itam ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen jox tase incha allah yeneen jamono incha allah altine bi di ñëw Eh, seen mbokk Rabiatu moo nekkoon ak doomam ak xaritam soxna Absa